Momar ndaw euh, ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax nga jiite association des consommateurs du Sénégal muy ASCOSEN euh, bariwul lu ñu leen dégg ci coow li am diggante ay école privée ak ay way waajur tey jii ci oh. ay weer yi nga xam ne nee nañu euh, jànguñu ko waaye te dañ ko war a lan moo ci seen position. waaw ñu nag dégg nañu ci nekkuñ ñoo xam ne dañuy wër li wax rek mais li nga xam ne moom ñu ngi koy liggéey loolu eh, ñi nga xam ne ñooy parents d'élèves yi xam nañ ko hmm. ndax. bi coow li amee li njëkk a def mooy dem rencontre ñi nga xam ne ñoo école privée yi mhm. moo xam école privée catholique moo xam école privée nga xam ne laïque lay ak école privée musulmane yi ak parents d'élèves yi ak syndicat yi ñu toog ak ñoom réunion ne leen lii nii il faut ñu ut ci solution ndax mënu leen ñoo laaj ñuy fay loo xam ne jàngalu leen mhm. ñu ne ñuy waaw léegi ñun problème bi ñu am mooy covid bi dañoo dal te li ñu am ci subvention un milliard rek la ñuy jox matuñu lu bari mhm. ñu ne leen léegi ñun lii lañ leen di proposer benn mooy ki nga xamante ne bi moom mooy parent d'élève bi mu mu fay leen mois de mars même bu fekkee ne mois de mars fukki fan ak ñeent lañ ci jàngale ñu tëj école yi waaye une semaine ci defoon feetu paak jot te bu feetu paak jotee duñ ko jàpp mm-hmm. kon nañ jàpp ne war nañoo fay mois de mars ñu ne daal ñu ne leen léegi mu benn effortu parent d'élève yi mm-hmm. ñu ne leen nag yéen ñi nga xam ne yéenay école yi ñun dinañu wax état pour mu yokk subvention bi mais subvention nekkul ne dafay fay carrément li ngeen di soxla yëpp li ci manqué mu nekk li xam ne mooy seen participation bu ko defee état def participation ngeen def participation euh, parents d'élèves yi def participation. Mhm. ñu ne d'accord ah ñun ñu état bi ba état bi yokku subvention bi jëlee ko un milliard yokk ko trois milliards. Mhm. mun trois milliards. Mhm. bañ ko defee rek ba nga xamee ne état bi informé na ma ci laa ma ne leen ah, waaw. liñ de liñ doon ñaan fi ñaan yàlla def na nangu na ko waa acca leen bokkoon ñu nan la ñuy def gaaw pour mandargaal li nga xam ne moom lañ d'accord mm-hmm. rek ñu commencé indi tànk bukki kon xam nga ne ñooñu ils sont plus dignes de confiance ndax ay góor nga toog ñoom wax ak ñoom mm-hmm. ngeen jël ay matuwaay jël ay engagement yow li nga xam ne mooy seen engagement ñun ñu def ko yàlla def mu sotti ñoom ci seen bopp bi affaire bi ñëwee ci ñoom ñoom ñu wax waxaay loolu moom lu ñu ñaawlu la lool lool lool lool lool te wax waxit bi kat école privée catholique yi ñoo ko indi mm-hmm. donc loolu mooy première situation mm-hmm. léegi nag ñun lii lañ leen wa kenn amul droit ne ma fay ma loo xam ne defaloo ma mm-hmm. mooy benn deuxièmement ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy état bi ñoom ñoo war a jël matuwaay yi nga xamante ne bi moom moo ci nekk pour euh, régler définitivement problème pourquoi parce que jàngale mbirum mbirum état la. Mm. état da koo dénk rek école privée yi yeeg école yi yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu leen ñuy def liggéey boo xam liggéey état mm. kon état moo leen war a jaarale yoon. mais boo xoole fi mu ne nii école privée yi dafa am pëccëxoo boo xam ne façon école bu ne dañ ko fa gis ak façon doxin defin bu ne. Mm-hmm. ñun nag jàpp nañ ne loolu du dëgg du yoon et que état bi war jël ci rapidement matuwaay. Mm-hmm. ministère bi yore éducation nag dafa wane ne moom man kat fii nga xam ne moom la sama euh, sañ-sañ yem mooy ci li nga xam ne moo jëm ci qualité njàng meek baaxaayu école yeeg ñoom it seen waaye li jëm ci contrat yi diggante parents yeeg école yi loolu ministère du commerce moo ko yore. ñun nag saisir nañ officiellement ministère du commerce. Mm-hmm. pour que ñu régler problème bi définitivement. d'accord euh, moo tax euh, ñu ngi ñaan état très rapidement mu jël ay matuwaayam ah wax dëgg yàlla régler li nga xamante ne bi moom mooy problème mu école privée yi. mu mel ni dafa am lu leen bett ndax euh, bu ma la déggee nga wax euh, da ngeen teel a séntu mbir mi le moo tax it ngeen jéemoon anticiper ci euh, question bi tey ndax da ASCOSEN da ngeen fas yéene dérouler benn plan d'action pour jàppale parents d'élèves yi. waaw ñun plan plan d'action bi nga xam ne moom lañ déroulé mooy li njëkk a wax. mooy mm-hmm. dañ ne loi bi nekk Sénégal. Mm-hmm. dafa wax ne kenn amul droit ne la ma lu ma la joxut. loolu euh, code des obligations civiles et commerciales moo ko def. Mhm. article cent quatre moo wax loolu. su la nit ngeen signante ne ko daf lay defal lii nga fay ko lii su la defalul amul droit laaj na la nga fay ko. Mhm. bu ne neexee ko moo tax ma ne parents yi am nañ droit dem ci yoon doon nañ dem ci yoon kooku mooy benn. Mhm. mooy benn plan d' action bi mooy aller en justice. deuxième plan d' bi mooy wax état. parce que mënuñ par benn benn benn benn benn képp koo xam ne da nga am élève ngay dem en justice dafay compliqué. Mhm. nañu wax état bi comme moom moo boot ñëpp te moom xam na li yoon wax mu jël ay matuwaayam rapidement wax li nga xamante ne bii moom la war a def li nga xam ne moo jëm ci euh, mbir moomu maanaam atte ko ci nu mu gën a gaawee. Mhm. ñun nag dañu wax ne. Mhm. école boo xam ne def na cours en ligne maanaam bi nga xamee ne eh, mbas mi tax nañ ko arrêté njàngale mi mhm. am na école yoo xam ne malgré loolu continuer nañ di jàngal élèves yi à distance di leen yónnee ay documents di leen jàngal ci internet bi nañ jàpp ne ñooñu war leen a fay que malgré mbas mi ñi ngi jéem a góorgóorlu pour remplir seen contrat bi nga xam ne mooy contrat jàngale mhm. mais nga xam ne defaluñ kenn dara jàngaluñ la dara defaluñ la kii cours en ligne ñooñu bu leen kenn fay dara dafa fu mu mais buñ leen fay dara ndax amuñ droit wax ne na nga fay loo xam ne dafa lu ma la ko. donc je uh-huh. wax waaw. woo nga ci état mais gis nañ tekkaaral gi euh, donte mbir mi nee nañ dinañ ko yóbbu ci yoon. état tekkaaralagul parce waaye jamono ji moo ngi dem justice non jamono ji laa wax parce que yéen dossier bi évolué na ba tey leneen la ngeen xalaatoon ne moom ngeen euh, négocier ba mu am euh, tey beneen anam ngeen gis ndax privé yi euh, soppi nañu la ñu waxante woon ak yéen ndax état waroon na seetaan ba mu egg justice déedéet état waruloon waaw ñun lool la wa wax état waruloon na seetaan ba mu yegg fii. ndaxte mhm. man bu ma jël samay mbir dénk la ko yow maanaam man man état maa yore li nga xamante ne bi mooy éducation ma dénk la ko di la seetaan ngay def lu la neex. Mhm. loolu moom moom moom moom moom kenn d'accord. d'accord ñu ngi wax état ne ko na gaaw jël solution boo xam ne bu ko defee euh, lii nii yëpp jeex ñu am njàngale moo xam ne ñoo méngoo li nga ak li nga xam ne mooy ni ñu ci biir réew moom mhm, doxu ñaxtu bi nga xam ne ay organisation de défense des droits euh, des consommateurs annoncé nañ ko ndax est-ce que seen dinañ ko ci gis. ñun jàpp nañu ne euh, euh, baax na. Mhm. mais li nga xam ne moom mooy régler problème bi mooy état bi jël matuwaay. waa rapidement mu xam ne day nekk définitivement mais ñun d'accord nañ ci marché boobu. d' parce que jàpp nañ lu baax la. d' accord monsieur Ndao gis nañ ñàkkum ndox mi tamit ci yenn euh, quartier yu nekk fii ci Ndakaaru askan wi sax euh, génn ci mbedd yi di ko ñaxtu seen o wax ne production gi ñu am euh, demande bee ëpp ndax loolu tontu la. waaw loolu du tontu tontu la parce que dëgg la ko production bi demande bee ëpp loolu wax ju yàqu. ndax waxuñu woon dépassé fii. waroon nañ fee dépassé nag loolu mooy liy wax ci. ndaxte bu fekkee ne danga xayma ndox xayma ñi lay laaj ñaata la ñuy laaj ci ndox nga xam ne manqué na nangam parce que am na ñetti at wala ñeenti at ci ginnaaw yoo xam ne defoon nañ benn étude bu wax ne lii manqué par jour ci ndox juróom-ñaar fukk la. Mhm. juróom-ñaari millions ci litre par bés muy cinquante sept mille mètres cubes mooy manqué loolu la waxoon. ñuy ñuy rokkos di rokkos di ba nee nañ li ñuy béy ci ay ndox yu bees romb na loolu waaye ba te ndox maa ngi manqué kon nga xam ne études yi ko xoolaat ni ko defee woon benn. Mm-hmm. ginnaaw études yi war nañ xool tam investissement yi ndax tam investissement yi su fekkee da ngaa investir nga ne cent la manqué damay investir pour cent balaa investissement bi pare temps bi dootul nekk cent mun na dem deux ta kon bu boobaa cent rek ngay defar du sotti. Mm-hmm. kon ñun jàpp nañ li nga xam ne moom mooy. état bi moo war a jóg gaaw régler problème mu li nga xam ne mooy ndox mi parce que état bi mooy jël ndox mi di koy jox seen eau mu koy distribuer. Mhm. kon nag état ci boppam na gaaw accélérer investissement yi ba investissement yi romb li nga xam ne moom mooy demande bi. Mhm. actuellement nag am na benn investissement bu ñu def boo xam ne. KMS 3 lu tudd muy Kër Momar Sarr phase 3. Mhm. moom war na indi cent mille d'eau par jour. Euh, temps yi nag léegi mu pare parce que branché nañ ko tax ci Senelec barkaati démb et que bu ñu defee loolu ba def test yeeg yooyu ba vérifier yëpp xaj na ndox mi dina gaaw ñëw te bu loolu bu ñëwee dina am tuuti tànn bu muy indi ci li nga xam ne mooy ñàkk ndox Mhm. monsieur Ndao wax ci immigration euh, irrégulière tey gis nañu ndaw yi dañoo jëlandoo mbëkk mi euh, te it euh, ñoo ngi gën saa su nekk di ci compter ay nit yi ci faatu mu mel ni état mbir mi dafa mel ni lu ko soxalul ndax tweet rek lañ ci gis bu weesoo loolu gisuñu ci taxawaayam maanaam dalul xel sénégalais yi tey ndax foog nga ne looloo lu jaadu la. waaw man gis naa ne li nga xam ne moom mooy émigration clandestine. Mm-hmm. Euh, lu lu lu lu lu métti la loo xam ne vraiment lu doy waar la. Mm-hmm. mais boo koy xool li li nga xam ne moom la état war a def rek mooy fexe ba fépp foo xam ne départ war na faa am rek ñu koy surveiller ba nga xam ne départ du am. waaye pour wax ne bu kenn dem gars yi tant que ñu am possibilité de rëcc dinañ rëcc bu def xam nga lu tax. ñi bi nga xamee ne feebar bi am na mbas mi. Mm-hmm. réew yi Europe yu bari dañu bari dañu faa faatu ay milliers de personnes ñoo ñoo ñoo faatu. Mm-hmm. léegi nag faatu yooyu ñu faatu dafa tax ba nombre de personnes yi ñu daan am pour ñu ñëw jàppale leen ci tool yi ak ci liggéey yi. dafa wàññeeku pour plusieurs raisons ñii dañoo faatu. Mhm. ñenn ñi dañoo tëj seen frontières yi ba tax ñu daan jógee ci yeneen réew yi di di màng si foofu jógee ci réewu Europe yi di ñëw foofu. Mhm. mënatuñoo ñëw. Mhm. léegi nag ñooñu seen liggéey mënatut a dox ndax amatuñu ay nit. léegi nag seen mbokk Sénégal yi nekk fii di def ay vidéo di yónnee di wax gaa yi ñëw leen parce que li demande am na mais. gars yi dañuy xar seen tànk tubéy pour dem. Mhm. parce que dañuy wax ne ah xaaral ma sonn rek ñetti fan ñeenti fan ci mbedd ci àll ci ndox mi su ma yeggee sama affaire sotti loolu moo waral euh, temps yi euh, ñiy dem bari lool. Mhm. ndax dañ jàpp ne place am na parce que ñu bari dee nañ ñenn ñu mënatu ñoo yegg ci ñoom. Mhm, nga foog ne bu ñu xëy seen dëkk yi ñuy jógee dinañ ko bàyyi dem wutali euh, fu ñu xamul. waaw bu ñu amoon kay dina dinañ ko bàyyi parce que tamit occupation la rek. Mhm. mais am na ci ñoo xam ne sax am nañ xëy fii bàyyi seen xëy bi dem am na ñii ay mool lañ ñii ay marchand ambulant am na ñoo xam ne jàppuñ ci dara mais li ci nekk mooy dañ jàpp ne xëy mi ñu am fii buñ demee fële dinañ am xëy mu gën a baax loolu lañ jàpp looloo tax ñuy ñuy ñuy a dem donc lu ñàkk xëy mi en tant que tel mais jàpp ne li nga am fii. soo demee fële li ngay am moo gën loolu moo moo leen dugal. Mhm. lan la selon yow autorités yi war a mën a def ngir ñu décourager ndaw yi nga xam ne ñooy jël gaal yi. non autorités yi moom duñ leen mën a décourager. Ah. tant que ñoom ndaw yi ñu ngi dégg ne ñu nekk ci bitim réew. ñu ngi leen di won ne leen place am na bu ngeen ñëwee liggéey. Mhm. danañ dem. nii mbaa ci ne. bu ñu demee nag ba jàpp ne foofu amatul place ñu toog. ndax xam nga ne mba mbëkk mi amoon na fi yoo xam ne comme nii la tare woon par mm-hmm, mm-hmm. tar tar tar ba bugg a dee ñu dem ba ci ak ñoom ñu arrêté pourtant nekkul ne état bee leen arrêté de déedéet dañoo arrêté seen bopp parce que gis nañ ne fu demee lañ bëggoon luñ ko am su ko defee ña yegg bu ñu demee wax fi nekk fii ne leen yu fii kay moom san wa pa bu ko defee ñoom ñu xam ne kon kat jaratu ko ñu toog. kon daal ñu bàyyi leen ñu gis. te jàpp ne bu demee affaire am baax day jàpp ne sax yow da nga koo d'accord kon bàyyil mu të bàyyil mu gis daal. Euh, voilà exactement. d'accord merci beaucoup Momar Ndao. jërëjëf. merci beaucoup.